tey jotaay bi nag tey lenn rek la ñëwuñu fi pour dara mais dañoo ñëw fii uniquement ngir benn nit moo tax ñu jug sonn da dajale lu ñu am lépp ak suñu coono yëpp pour ñëw fekk ko ci biir yi mbokkam mun koo sagal foofu parce que guddeeg bëccëg ñu ngi wax ak moom téléphone di jaabante ak moom buy dem ak a ñëw te yoon la it ay mbokkam di xam buy ñëw fan lay dem ak ñu muy àndal ñan la looloo tax ñu ñu mu ànd ak ñu def fi tey jii fexe ñëw saafante ak ay mbokkam nuyonte ak ay mbokkam ak i xaritam ak i dëkkandoom ak i ànd ci jàmmam ba ëllëg si biir boo xam ne fu jógetee rek seen xel dina mën a dal looloo tax ñu ñëw fii leneen li ci des nag lay jóob mii mu nekk jigéen tam nekk ndaw doon jàmbaar lool am pas-pas am ngëm-ngëm engagé bëgg xam fi mu jëm xam fu mu fu mu fu mu bëggee boppam am yene yi mu am tam ci askanam bo tax it ni and ak mom ma xol man mako xol xool ba mu neex ma man ma wo ko muy ñew muy fekk ci liggey ma wo ko ma ñu ko yow ku and ak yow ku and ak yow liggey dina dem te mbinante wu ba ma koy wax lool bobu xam ñaari fan lañu xamanté muy ñew sama kër di liggey di recenser li muy def ci liggéeyam ma ko ma wax lool ma and ak mom ci lool te bobu bañ tay ñu and ak mom tay ji man sax dama ko wo momay wo mom momay wo mu am mu am ci pas-pas lol mu and ak moom béykat yi ki nga tay ne ji moy Ahmed Diallo mi mu and ak mom japp ko ni ko doyna ma ci yow parce que ki wor war dëkk bi dafa bëri ño xamni da ngay and ak ñom ñu yoru ñu dara ñu ñu juga yow daanu ba ba yalla yobul len fenn ñu fatte la mais ki dafa melul comme non ki bu amé day yëkkati ci li nga am ci ñakam ci bo kosam ko defaat ci askan mi té kimi liggéeyal xamuko xamul ni ndax moom mu ngi koy defal li muy am moom mu ngi koy def ci askan bi moom bi wutu ci loola moom xam la wut Ahmed Diallo la moom doon ba pare nit la boo xam ni li muy am ci wërsëgam da ko war di yee génne mu néew mu bari mu bokk koog sénégalais yi ak ak jullit yi ak jaamu yàlla yi moom noonu la façon nit boobu la man damay wax ak moom ngir du du affaire politique man sama diggante moom du affaire politique man sama diggante mooy mooy sama grand la ñu bokk benn koñ su ma amee sama soxla moom laay jëkk xalaat. sama doom bu école ubbee inscription eh, <laughs> bu mom la ñu ko xalaat finiture la ñu ko xalaat dama koy wax eh, ba la ma ko tudd musala le maire ba ñep foog ni moy maire te du maire suñu waxé rek xaar ne xaaral ma woo monsieur maire damay tax suñu kër sax ñu bank amuñu otaay ma xaar ma woo monsieur maire wax ni amna ci ay seede ñu ci biir jotaay bi ni kon loolu tax ma def am euh, volonté bi itam ba ci lepp lu mu nekk rek ci carton yalla ma fi nango te ba fekk ci loolu tax ma and ak mom ànd ak ndey jop tam wan ko xam tam ëllëg sibir fu mu jàqee wala fu mu gees bëtam xonqee mu ànd ak nit koo xam ne dina taxaw tey ji wan ko wan wan ko maa ngi sa ginnaaw maa ngi sa kanam façon nit ko politique nag loolu du dara politique ku ci nekk am na foo bokk mais nit lu tax mu lay gëm yoroo yaa koy def ci sa biiri mbokk ci sa gëm-gëm ak ci sa ni muy wax ak yow yaay dem ba xam ni kat kii su ma ànd ak moom du ma war nga ànd ak moom ñun nag boo di ñëw fi nag dañoo ñëw rek pour sagal Ndeye Diop ci biiri mbokkam ci biiri askanam. li may tax a jóg lu nekk rek Mouhamed Diallo mii ci la bokk xaw ma ndey jóob de waaye xaw ma fu mu loqatee ak ah, Mouhamed Diallo waaye téye na fa fu mu teg loxoom daal foofu la dama koy wax di ko waxaat Mouhamed Diallo nee naa leen su ma yeewee guddi ma jóg su ma yeewee bëccëg ma jóg ñoo bokk nag dixième moom muy fonctionnaire may fonctionnaire waaye dafa am ñoo xam ni. dañoo yore te nanguwuñ cee joxe Mouhamed Diallo nag buñ leen waxee historique am rek historique mooy li nga xamante ni jaar-jaaram la war a xam ni président ku ko war a gestu la man foofu laay waxee li muy def nii nii ci jaxaaw ci caali gii moo gën a tuuti ci li muy def ci biir Thiès ndax am nañu ay témoins yoo xamante ne yu yu patan la ndax xale bu jigéen bii taxaw nii tey di filmer randu leen la dëkk mbooloo mu mu yore mat na euh, cent cinquante te ay moroomam kese kese comme seen moroom yéen ñii donc bu ñu nee Mouhamed Diallo day liggéeyal Thiès ngir mu Macky Sall le président son excellence Macky Sall pour mu mën a gestu waa Thiès kon ñu wax ni Mouhamed jàlloo mii fa mu teg tànkam foofu la ndax man mii di wax ak yéen man mii benn laa ci preuve yi nga xam ne Mouhamed Diallo da leen di dimbali. xam nga boogaa dafa ni moom bu amee problème ataya mohamed Diallo lay xalaat waaye xam naa ne boogaa ci dixième la dëkk waaye war naa dégg ay jaloore Mouhamed Diallo ay jaloore Diallo kenn man mii di wax ak yéen bie màq la ma may mu war a mën a yóbbu na ay mbokam de mu yëkkati bie màq ndax maa ngi ànd ak moom di ko guddal di ko kon fii ñu ñëw tey ci kër euh, ndey Diop dama bëgg ay mbokam dala seen xel nga xam ne Ahmed Diallo Mouhamed Rasulullah lañ la tuddee dara du yenn ci poosam dara du ci fanaan li may wax nag dama koy waxtaan ndax koor koor la ñu ne lu waaye di wax rek sa bàmmeel ngay laloo politigul ngir nax askan Mouhamed Diallo politigul ngir tromper kenn même le président de la république mi nga xam ne xëy na woowoo ko ko pale de waaye xam naa ne fi mu ne nii li muy dox moom mii sax li muy dox moo ëpp loolu ndax depuis 87 la xamone mohammed Diallo muy dox ak tankam yi jaay na otoom jaay na ay doomam jabaram la len ba max ñooy toppatoo yaayam ñoy topato amé Diallo nek ci askan bi lolou dama bëgg Sénégal yépp xam ko duma géwalam de waye ku ku la defal lu baax nga nek géwalam kon fi mu ñëw ni dama bëgg yeen mohammed Diallo ngeen tiyé ko ak seen fukki loxo su len wowul sax wo len ko su len warul wër len ko ndax japp ngeen ko ci ngeen japp ni moy waja xeyna nak nit ñi mom dañuy politique rek di wër rek di nax nit ñi xam nga ñi nga xamantene ñoy sol seeni costume di jégué ji Macky Sall ak di ko nax dama koy wax ci télé bi dama bëgg Macky Sall son excellence xamni ñun ñi nekk ci base bi lañuy liggéey ñay dend ak mom di and ak mom liggéeyuñ ko dañuy bàyyi kay ñun ba ñu liggéey ba pare ñoom ñu ñëw toon ni ko ci suuf dem jàkkaarloog Macky Sall ni ko ñi maa leen moom mu jox leen ay millions nag ñu dem tabax seeni château Mouhamed Diallo mii wër na jëmm Rasulullah laa la wax ci kër yaayam la nekk waaye teraanga bu mu am jox na ko doomu aadama yi yan nañu yàlla jàppale nag Diallo jéeri ba nga sut say waajur ay fan yàlla jàppal li nga bëgg ci askan bi yal na ko sam borom defal. chaque jour li may témoigner rek mooy ñun chaque jour ñoo yàgg nekk Thiès yore ay clubu école di organiser ay foyer ak yooyu waaye saa yu ko mosaan def suñu xel kenn ku nekk ci ñun dañu naan ñun ne bu ñu demee seeti am na ku dëkk fii dixième bu ñu demee seeti ko moom dina ñu may lu ñu luye ay sonorisation wala dinañu may lu ñuy defee ay conférence ci loolu lañ doon dem këram di ko seeti di dem di organiser ay conférence këram di dem mu ñuy jox ay xaalis ñuy luye ay salle di def ay conférence di def ay forum ba tey jii nii ci loolu lañ ko xam chaque jour aussi bu gisee lépp loo xamante ni développement la loo xamante ni formation la wala dara loo xamante ni Thiès la nekk daf ñuy woo boole ñu si te mu doon nit koo xamante ni vraiment loolu gars yi wax nañ ko ba pare maanaam ay alalam ak yooyu du ko te nit koo xam ne tamit vraiment ku am gëm-gëm la am am am am am am am am volonté surtout ci jeunesse bi nga xam ne man foofu laay waxee donc boobu ba léegi ñuy ànd ak moom suñu borom dogal tamit ci loolu yi ñu xamanteek Ndeye Diop boo xaat koñ kon tey bu ñëwee di ko seet si ñu nit faw ñu ñëw rek dañoo doon ñëw rek pour def acte de présence mais vraiment lépp dañ koy delloowaat njukkal Ndeye Diop nga xam ni vraiment bi mu ñëwee ba léegi gis nañu engagement bi mu am ak tamit li muy woote ci développement parce que léegi gars yu bëri dañoo am lu ñu réere mooy dañoo jàpp ni politique rek mooy toog élection jot nga dem euh, sànni carte wala kii nangam wala sàngam alors que politique développement la te nit soo bokkul ci politique bokkoo ci engagé woo ci benn benn benn leader bokkoo ci dara maanaam lu bëri dina xew loo xamante ni ça n'a rien ak politique bi gars yi di wax te yow doo ci doo ci jot te li ñuy fàtte Sénégal mooy lépp képp kuy jiite réew mi ñun ñoo ko xool fal ko ne ko yaa ñuy jiite moom jiite wuñu parce que moom xaalis bi mu yor moo ko moom moom jiite parce que moom dañuy may suñu xaalis lañ dajale di fay ay impôt di fay ay taxe ba mu bari ñu dajale ko jox ko ko kon ñu nit buñ ci génnee suñu bopp ne bokkuñu ci wala ñun nangam sangam maanaam dañoo gedd suñu wàll mais mayuñu saraxuñu ñoo ko moom te yooyu it le président di def ay action yu am solo comme ku ne dégg na DER bi tey jii boo ko waxoon fii ñu bari xamuñu ko ay plus de milliards lu ëpp milliards dugal nañ ko ci cees pour financer projet jeunes yi ak projet femmes yi mais tey jii boo newul ci milieu bi ne ah man de politique nangam sangam doo xam ni xew kon di engage wu di déglu nit kiy ñëw di wax ak yow di la wax ay idée di la wax ay lu baax loolu dafay am solo day tax nga mën a xam li xew léegi nag bu ñu la bëggee dugal ci loo xamante ni dëppoowul ak say sa diine dëppoowul ak say conviction am nga droit taxaw ne foofu duma fa àgg mais àndandoo pour réew mi jëm kanam loolu dafa war képp képp ku nekk donc monsieur Diallo ñu ngi lay gën a encouragé waat di la gën a ñaaxaat rek ci action de solidarité yi ngay def vraiment ñun moom loolu la ñu soxla Thiès koo xam te ni buñ ko soxlaa gis ko. di baalu ñëpp àq ci weeru koor bi mu mel ne ñun xamuñu Mouhamed Diallo waane xam nañu Ndeye Diop ndax sama cousine la dafa ñëw teg ay am ñu Mouhamed Diallo ci développement lay dox lii ak lii ma ne ko ñun ay jeunes lañu yor association ñee toog ne ñëpp si lañu bokk association des jeunes unis pour le développement de Thialy suñu lépp nekk ci développement ndaxte chaque année dañu organiser conférence te bu ñu paree dañuy dem defi social ci daara yi kon suñu dee job ñëwee indi ñu apport boobu nañu Mouhamed Diallo ci loolu lay dox ko ñun dañuy ñëw jàppale ko ndaxte ñun loolu lañu xam ku développé Thialy rek ñi dañuy mën a ànd ak ñoom ndaxte bañ dalee jug depuis 2014 ba tey ci yooyu la ñuy dox Ndeye Diop nag fu mu teg tànkam dinañ si teg Mouhamed Diarra tam ñu ngi sa ginnaaw ñu association des jeunes unis pour le développement de Thialy merci. man Henriette Ndiaye damay yàgg a yëngu ci politique ca PDS ba Ablaye wàdd di commencé sama yaay dafa ñoo buuboon ñun ñëpp man ci première Amazone yi Ablaye wàdd ci laa bokkoon ñu ciy daw di ci daw di ci daw di ci daw ba egsi fii. gisuñu lu ñu doy Macky nag yàlla def ni muy nit koo xam ne dama koo bëggoon avant muy doon dara samay koppi nag samay dëkkandoo ñëpp xam nañ ko fu ñu masaan a wax Henriette Ndeye Ndiaye bu ñu nee Macky Sall ma tëm ñu ne Henriette Ndiaye Macky sàll rek a dee ci xolam loolu yàllaa ko def ça n'a rien à voir avec politique dama ko bëgg te yàlla tax moo tax bi xale bi ñëwee léegi fëgg ma dama tëb ndax ñun waa caali dañu sonn dañu sonn torop ndax dañu yàgg di yëngu gisuñu dara lu ñu avancé loo te bu ñuy wax nag quartier bi surtout quartier bi moo tax ñuy wax ndax bu njey dee xàll mbabal doom jaa tax ndax déjà ñun daanaka xëy na li ñu mënoon baritul li ñu mënoon daanaka xëy na mënatuñ ko kon bu ñu dee tëb di dal suñuy njaboot moo tax ñuy tëb di dal ñu nekk nag ay xale yoo xam ne dañoo am jom ndey jom mii bàjjanam laa bayam don sama chamin di sama wolere bajanam bi di sama seex ñuy and a base ba neug ni lepp defalante nañ ko kon tay bu ñewé andi lu melni surtout mu jëm lo xamni ci côté Macky Sall la man Henriette Ndiaye damay jog en personne damay jog pour taxaw ci lolu ñuy sante nak Diallo parce que Diallo man xamna ko ni waaw ndax ci dëkk bi la dëkk di dégg yu bax yi muy def ci doolay boppam ak wax ju baax ji muy wax di ko conseiller xale yi man xale yee ma ñor ndax booy wut rek luy defar ëllëg rek wutal xale yi ma nawe Diallo ci loolu te fekk gisuma ko kon bu dikkee tase ak xale bu mel ni ndey muy xale bu baax macha allah macha allah di xale bu am ñam di xale bu am kilifa bëgg dëkkam ndax mënoon na ni tey man xale laa yii du ma ci yëngu waaye boo gisee mu defee nii xale bu am ambition la li li li Diallo wax sama xale yi ndax man maay seen marraine groupe bi man maay seen bàjjan ndax man dama bëgg lu baax kon bu ma gisee xale yi jóg gis ku mel ni mu Mouhamed Diallo jàpp ci en avant rek duñu mës a dellu gannaaw te man Ndiaye yaay bu nekk ci caal yi dinaa taxaw da nga génn sa doom dana génn ànd ak Mouhamed Diallo ñu wëtu Macky Sall. jootaay bi am na solo macha allah damay appuyer rek ci sama sœur bi wax tout association des jeunes unis pour le développement de Thialy en tant que présidente de l' association dañ développement moo ngi soxal suñu développement wu quartier Thialy bëggoon nag ku ñu ci jàppale bu baax a baax ku ñu serrer la mais dans la main. kooku noonu dinañ mën a topp ci ay tànkam fu mu teg ay tànk teg suñu tànk social wàllu social ak éducatif moo ñu ñor ak développement yi te yaakaar naa ne tonton Mouhamed Diallo ku ko jàppale dinañu mën a jàppale ci suñu développement quartier. ma benn yoon li ma xamee Mouhamed Diallo xëy na ànd bi yàggul mais aussi tamit maa ngi siy gis mi ngi may woo mi ngi may nemmeeku mi ngi may jox ay conseils à chaque instant ba si euh, projet yi mi ngi ma siy dugal. te man développement kese moom a ñor ndax ay jeunes rek laa ànd ak ay jeeg te jigéen jeeg yi jigéen ñi dañoo yore kër yi léegi kër goo dem jigéen ñee ko yor su góor ñi defee benn jigéen def na fa ñett ñun ñoo nekk si kër yi ñooy yore doom yi ñooy def lépp kon tey jii su ma demee bay ànd ak ñu mel noonu dama bëgg ki ma jàppale parce que tamit fii jeunes yu fi nekk yëpp presque dañoo diplômé wu ku nekk mi ngi si am liggéey mi ngi leen të bu ma waxee Mouhamed Diallo dama ne ko Mouhamed Diallo man jeune laa te dañoo bëgg développement jeunes yi def nañ formation ba sonn amuñu liggéey gisuñu benn ku leen dimbale ku fi ñëw ay waxu kesew kesew ngay wax kenn dimbaleegu leen. Euh, jigéen ñi aussi sonn nañ bëgg nañ aussi ku leen dimbale te lekkati kese naxuti béy dañoo bëgg ku ñuy dimbale ku ñëw dimbale ñu euh, ñu nekk si développement. moo xam ne dama la woo si développement nga wuy si ma tey na danga ma sagal euh, man maa ngi si yow te képp ku ñëw ànd ak euh, nekk si bëgg développement man kooku laa bëgg kooku laay ànd ak parce que ay jeunes lañ dañoo toll si euh, bëgg dara bëgg a def suñ developpement xam nga bëgg a defar comme ni ñu koy waxee kon nag suñu amee koo xam ne ne tey moo ñuy dimbale moo ñuy jàppale kon kooku waaw dañuy dañ koy ànd parce que ku ñu xàllal yoon lañ bëgg parce que yoon bi lëndëm na bëri na ñàkk bëri na ay dégg ak lépp si yoon bi mais nag kuñ suñ gisee ku ñu ko baleel ku nekk dañuy jël. ca Diallo dañoo xër daal ci moom nekkul ne dañu bëgg ku ànd ak moom moo tax ñuy wax ci moom lu baax nekkul ne tamit dañ leen xëcc pour am leen moo tax ñuy wax ci moom lu baax mais damaa dégg sama maam di wax naan bu lëg lekkee alam na ko gërëmee cooy. c'est parce que lim ñuy defal lu baax moo tax ku ci nekk bëgg doon géwalam di wax parce que nit tamit amoo ku dul ki lay jàppale ñun ay jeunes lañu randu leen laa dëkk ma kii ñoo bokk koñ mais mi ñu fay liggéeyal loo xamante ne daal vraiment am na ñoo xamante ne jiitu nañ fa te defaluñ ñu fa dara man parce que temps mois yi passé rek ànd naa moom dugg ci koñ bi gaa xam nañ ko ñëpp parce que man depuis cinquième la ma yore man ak samay rax ñëpp moo leen jàngal ñëpp xam nañ ko mais dañu duggoon bëgg a xuusaat xool terrain bi nu mel ku ci nekk nag biñ ñëwee laaj nañ la sa problème suñ koñ presque biñ génnee ñëpp waxu tali lañ fa wax quelque mois tegaatuñ ci sa xanaa trois mois nga gis ñu commencé ñoo defaral suñu tali loxo ma ngi ci loxo keneen a ngi ci dañ ko koy gërëmee fu ñu dem nag dañu tàmm laaj leen seeni problème affaire yooyu yéen gis nañ ne fii jeunes yi dañ fee bari macha allah am na ay mag mais jeunes yee fi ëpp te ku ci nekk ya, au oh, moins làq nga sa diplôme boo xamante ne ya, bëgg nga ëllëg ku la jàppale loolu moo yokk ya, tax ñun tamit ñu àndandoo bëgg dugg fe Thiès fam dafa am feebar feebar bi jën yi liggéeyuñu maire yi am nañ seeni soxla seeni soxla mooy seeni doom kon ñun ñëpp ñoo bokk maladie bi moo tax ñu bëgg dugg rek ku ci nekk daal wax sa sa li nga soxla ñu xam ñu organiser di mardi je crois 29 mai fii ci caali wuy si sunu sœur sunu xarit sunu doomu ndey di ndey Diop ndey Diop nuyu nañ la mais balaa ma lay gën a nuyu damay wax ñi ma àndal ànd ak ku ñu naan may sa booy Diop lépp ma di madame Sall muy lépp loo xam ne muy jigéen ci dixième carrière escale moom laa ko dénk moom koy liggéeyal moom koy saytul ànd ak tamit Aïssatou Ndoye muy responsable au niveau de Randoulène Xayalaga mais responsable la ñoom ñëpp nag ñu bokk ci mouvement àndandoo taxawu tamit daf ñoo gunge ak monsieur Ba di Boga lañ ko gën ak Momar fekk tamit Ah, ñëw tey am mbégte ah, li tax ñu bég ndax ndey dafa am fu mu ne woon fa mu ne woon bañ cay waxtaan téléphone dong lañ ko wax ndey na ma man de li ma dégg sa kàddu ak li ma dégg say wax ak say jëf sama xel dal na dina ànd ak yow ma ne waaye lii yomb na de kiy jógee réew mi di ñëw ci man pour jàppale ma ñu ànd ak président Macky sàll ñu koy wax téléphone mu ne ma dangu naa ko ah, loolu xaw naa yomb de. far yàlla def dara am benn ministre buy def mitin mu invité ma ca ma ne ko ah man de comme am na meeting buy am te di ma ca invité te nga caa ñëw rek yàlla xam na ne kaar la duy ba mu fees duyaat kaar duyati kaar indil ma kon ku la defal loolu te toogu leen kenn toogul presque toogul lenn toogul te jox ko 15 mu defal loolu kon engagement bu ko waxee am na ko kon ndey xamal na ne ma ngi lay sant di eh, la gërëm da nga ne nañ la dooleel ah man de sabab doole sabab ñaq lu ma la mën a dooleel dinaa la ci dooleel gaa président Macky Sall joxaguma alal joxaguma ay moyen may na may bee màkk nag maa ngi ko ci sant bu baax di ko naan mu gën a dolli nag waaye bés moo joxoon moyen Thiès dañ xam ne président jox na may moyen ñun ñu moyens yu def suñu poos mom mi wax na ko xeyna dañu fekk juddu fekk suñu parents di liggey ñun ñuy liggey suñu soxna yi liggey ñu ngi sante yalla ñun Thiès mo ñu tax juk balay Macky Sall dañ dan liggey ci développement 1987 bobu amuguma ñaar fukki at la commencé di balay ay mbedd di peinture trottoir kon koy def lolu te nit ñi xewal ko léegi te lolu upp ñaar fukki at ak juróom kon ñun développement lañu xam développement lañu gëm bu ñëw fekk fi ay jeunes yu engagé ah duñu def lu contane mbir mi loolu la xalé yi yor développement bu réew di féliciter di encourager les jeunes unis pour le développement de Thialy mbir mi jeunes ko yor vous vous organisez ni ñëw tek leen loxo et vous êtes sur la voie man lu ma leen mën a Boga ànd ndey job dina ko def duñu digaté nak ndax ki ñu andal digaté waye luñu ñu ak jéego bu ñu mën a def dinañ fexe ba def ko ba yéen waa Thialy les jeunes gi ci seen bopp mbootaay nag am na fi tey day ñëw nuyu si Ndey ànd ak mbootaayam xëy na am lu ñu koy jox dañoo lancé lu ñu naan leketu yitte ndax dañu jàpp ne nit ki bu la yittelee di ko nemmeeku ji di nga dem xamay pas-pasam xami soxlaam xam bëgg-bëgg xamal jàllanko gàllankooram ngeen waxtaan ci xool naka nga koy mën a jàppalee ñun loolu moo ñu fi indi tey xëy na lii lu xaw a officiel la rek mais bu jeexee dañ toog ci ruq waxtaan mu gën a yaatu te nag ñu ñëw indi leket dama koy jox sama responsable des femmes bariwul naam waaye mën naa ne bari na ndax euh, Macky Sall joxuma ko Augustin Tine joxuma ko Abdou Mbow joxuma ko dembo juuf joxuma ko damay bëgg mu leer rek du docteur Ndiaye du kenn ku mako jox sama salaire bopp laa jël fas len jàppale ndax li nga def kérok dafa li nga defal kérok dafa reuy indil ma warna won ma ne yombo ngi sa gannaaw du lu yomb kon man nak war naa ba sa bir koñ sagal la donte bëri léewu war sagal la nit amul lu ko yëg ah, ci lol nak comme ñun ñu jël suñu moyen ci def. ndax boo gisee ma ne Augustin joxuma ko boo gisee ma ne Abdou Mbow joxuma ko boo gisee ma ne Demba Diouf joxuma ko ñoom Macky Sall dafa leen joxul moyen président dañ lay ñaan président de la république Macky Sall président wu APR ñu ngi lay ñaan nga jël ay moyens jox ko Augustin tin jël ay moyens jox ko Abdou Mbow jël ay moyens jox ko Demba Diouf jël ay jox ko docteur Ndiaye keneen ak keneen mocc ci base bi ñun ñu ko jox ñu ay jox ñuy moyen set ñu ne boo ñu joxoon moyen ñetti weer cees mokk Thiès Ouest gee ma dëkk ñetti weer mën naa ko mokkal dixième carrière escale Somme Grand Thiès Randoulène Mbourkat ba fépp am nañ fay nit yàgg nañ ci biir Thiès li tax ma la président na nga gëstu Augustin Tine nag ñooñu dañoo dem législative am fu ma nekkoon am ku ma àndaloon muy l'ancien ministre de l'énergie à trois jours des élections quelques jours des élections mu dem j'étais seul aw ma benn moyen du oto aw ma sax charrette sax joxuñu ma ko su ma laajee Augustin mu ne président jàppale ma ci ay moyen ma laaj Abdou Mbow Abdou Mbow ne président jox may moyen samay moyen bopp laa demee Augustin ne ma samay moyen bopp laa demee Demba Diouf ne ma samay moyen laa demee a ah, xanaa docteur Ndiaye am na lu ma compal astuut Safetou Thiam ak Dame Diop ba ca Diourbel DG 3PT am na lu ma compal astuut ne ma jàpp ci loolu laa jël kat. mën cee def ak la ma yoroon mën ci def sama tey débat organiser ko tey débat loolu de laa ci def waaye moo tax ma lay ñaan président comme joxe woon dara Augustin Tine jàppale woon dara Abdou mbaw jàppale woon dara Demba Diouf ba tax ñun mun ñoo campagne mun ñoo politique politique bi ñu bëggoon ndax boo leen joxoon moyen ba ñu jox ñu ko kon kenn duñu gagné suñu centre de pour la première fois dañoo gagné parce que amuñu ay moyens yuy ñuy demee dañ ñoo seetaan. du benn litre carburant jox litre carburant la valeur sax litre joxuñu ko ñu ak suñu moyen engagement ak détermination kon président bëgg la base ci la ko ah mais l'essentiel ñun suñu devoir mooy wax la li base bi ndax ku ba ministre def koy sax bi ministre conseiller aux affaires diplomatiques moom mu dépassé ñetti kaar indi ko ba mu fees dell te boobu joxuma ko 5000 francs dama ko ne ministre Maguette kat nee na boo indee kaar ba pare ca meeting mu ca lay soog a fay moom mu jël engagement wu bàyyi réew mi déplacé ñetti kaar indi leen te benn dërëm te benn dërëm te joxoo koo ko dara kon du yomb kon président nag ñu accompagner ñu accompagner la base nous sommes proches de la base nous sommes avec la base gëm nañ ne na boko defé jappalé base bi yàgg naa la cee woo président ties pour la première fois ah ties est ga ma pour la première fois meuna na dugg ci bir APR anti grand président et gëm comme yaa ngi ci ben boko yakar man pour le moment dama jël sama activité ci ben boko yakar waye ma ngi ci bir APR batay ndax moy limay wax moyen lég lég day génn gaay téyé ko ci kaw. ñenn ñi naan président joxu leen buñ demee réunion ñu gis ne ne moyen gën na ndeke waaye ñoo ko jël def ko ci leneen di ko séddoo seen biir ah man mënumaa bokk ci boobu bennoo bennoo bu ma xam bu dee bennoo la lu ñuy def dañ koy waxtaanee waaye bennoo bu moyen génnee gars yi jël ko ay millions diw naan may na ma ci million kii ne ma may na ma ci lii ah président bu ñu ko jox bu génnee ay moyen wala ay xaritu président génnee ay moyen pour base bi la mais pas koy séddoo. waaye nañ ko def moyen politique ko responsable politique ñu mën ci liggéey pour président mën a am ndam inshallah Je tey dama ñëw yitteel leen ah la ma yitteelee jàppale ma man gëm ñu président de la république Macky Sall def ko gëm nañ ne ne en 2019 au soir du 24 février suñu président wiiw ñu and ñëwaat fii Thialy fête victoire bi and ak yéen gëm nañ ne 2019 est là et 2019 est dans la poche Inshallah je vous remercie. Euh, man dama am responsable des femmes buy seeti jigéen ñi damay and ak moom la may joxe ma teg ko ci loxoom moom moo koy joxe noonu lay liggéey liggéey bu set loolu lay invité tamit les responsables de paire muy Augustin di Abdou Mbow ak ñeneen ak ñeneen. nañuy gën gestu baas bi gën a lienti base bi ndax fii bi may ñëw tey envoyé naa message Augustin Tine envoyé naa message Abdou Mbow envoyé naa message Demba Diouf Demba Diouf sax gis naa ko tey mais waxaatuma ci dara dañuy bëgg ñuy gestu duñu xaar duñu faale ñu fulal dal ni ñu fulaalee baas bi ñun nañu fulaalee noonu ndax base bi ñoo ko téye incha allah kii nag Maysa jox naa ko jox en tant que responsable jox la. ndey dinaa sawar pour jox la ko moom ndax li nga def daa rëy moom ñu jaas yu asaka yéene rek te di ñaan yàlla fekke eh, yàlla may ñu fekke leneen liñ la yéene rëy na torop te dinañ fi ñëwaat mbootaay jigéen yooyu ni ñu gën a takku rek te jàppale seeni doom